waaw xanaa damay rafetlu sama teewaay ci bis bu bis bu bis bu màgg bi euh, waxtaan nag euh, moom lañu diggal doomu aadama euh, mu nekk jullit mbaa mu bañ a nekk jullit waaye suñ borom daa diggal ñi mu yónni ci ci ci askan wi neen waxtaan leen ak ñoom moo tax mu indi ay téere ngir ñu lal waxtaan ngir ñu xalaat ndax il parle au doués de de raison borom yi xel yi lay waxal donc lu mel ni su amee li may ñaan kay mooy ñi nga xamante ne ñoo ko sooke woo ñu ci ñun ñëpp li may ñaan rek mooy kenn ku nekk ci ñoom na fexe ba lal ci cëslaayu dëgg euh, cëslaayu xol bu sell nekk dañu bëgg waxtaan bi kat yaatu ba noppi sax loolu daal mooy li li tax ñu rafetlu ñëw déglu te soo dégloo di nga dégg te li ñu déglu dégg ko dalagum na xel. waaye li ñuy ñaan rek mooy ministre bi nga xamante ne moo ko jiitee muy Aly Ngouille Ndiaye mu gën a yokk jéego yi gën a yekk pas-pas bi ba ñëpp wuy si ci ci ci ci waxtaan bi am. am nañu wuy siwul sax loolu dama wax ne que euh, réew moo xamante ne mi ngi dox euh, jëm ci naataange dina am ñoo xamante ne dañuy nangu am ñoo xamante ne suñu wootee waxtaan du nangu ndax daa am fu nu jot a jaar rek ñi woote waxtaan wi. moo tax may ñaan ñi nga xamante ne ñoo ko woote sooke ko ñu lal ci cëslaayu dëgg ngir ñi nga xamante ne dañoo gëm ne waxtaan bi du jëm fenn ñu amaat yaakaar bu bees ñëw tàbbi ci bile waxtaan.